bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi rahmatan lilalamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateur rajo télévision bu Sénégal fu waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal la tawfiq te defal ñu ko di jox nuyoo beeg ziyaar bi xalifa yu tedd yi nga xam ne ñoo toog si buntu këru seeni waajur yi nga xam ne ñoom la ñu wuutu di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu jiite réew mi jël nuyoo baak ziyaar ba teg ko ci loxo ki yàlla yan li nga xam ne ni moom mooy réewum Sénégal muy son excellence président Macky Sall di nuyu suñu kilifa gi nga xam ne moo nekk fii si kër gi di DG muy sëriñ rasin Talla di ko jox nuyoo bu RTS ak ziyaar bi mu joxal ñu ko ci mbooleem koo xam ne yaa ngi si suufam agent yeeg ñëpp ba ki nga xam ne moo mujj a ñëw si kër gi di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko def si réew mi jàmm te def si àdduna bi jàmm man ak sama consultant si émission bi ngeen tàmm am ay bis bu nekk muy wareefu jullit muy docteur Mouhamed ñaa dañoo doxantu ba Tëngéej jëli fa kilifa goo xam ne gu tedd waaye muy ab gëstukat di ab formateur di ab jàngalekat di ab yarkat muy inspecteur Seydou Xumma xam ngeen ne émission bi passé invité woon nañ fi benn naataangoom muy inspecteur Saïd Khalid Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant au passage di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu fayal ñu ko si émission bu tedd bi nga xam ne ni def na ko émission boobu nag ak émission bi dañoo am lu ñu nuroo lool ak lu ñu bokk muy rôlu jàngalekat ngir tabax ab jàngkat rôlu jàngkat jàngalekat muy rôlu ab enseignant ngir tabax ab élève boo xam ne ni bu ëllëgee dana amal boppam njariñ dana amal boppam société bi waaye dana amal bopp euh, njariñ ay mbokkam moo tax tey ñu invité suñu kilifa gu mag gi di suñu sëriñ ndax jàngal nañu di suñu xarit di suñu doomu ndey muy inspecteur Seydou Xumma te yaakaar naa enseignement wu Sénégal ministère ba nga xam ne ni ñoom ñoo ëmb ñay jàng ak ñay jàngale miin nañ ko xam nañ ko réew mi tamit ñu ngi jëriñu si expérience am ak si wàllu formation am ak si wàllu xam-xamam tey maag sama consultant moom la ñu invité jëlee ko ba Tëngéej di ñaan borom bi subhaanahu wa mu sàmm ko te yokk xam-xam bi fecc làmmiñam ba lii nga xam ne moom lañ ko fi invité ngir njariñal réew mi yépp njariñal école njariñal ndonga njariñal ki nga xam ne nii moom mooy jàngale incha allahu taala bu ñu àggee ba si cëppaandaw ga ñun ñëpp ñu am ko te jariñoo ko kon euh, su ma joxee sama consultant di docteur Mouhamed Niang mu ubbee nuyoo ñu dalal suñu invité su ko defee ñu daal ne coow nag si biir di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq di ñaan nag mboolem koo xam ne yaa ngi suivre wareefu jullit nga jël not jël enregistrement ndax émission yi njàllale ngir penc mi la waaye tamit ngir waajur yi la ngir ndonga yi la waaye ngir Sénégal gépp la insha allahu taala docteur Mouhamed asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu al imam Mouhamed al Moustapha ñu ngi lay nuyoo euh, tey nuyu it képp koo xamante ni mi ngi seetaan bi nga xamante ni mooy RTS di jiital ci nuyoo bi. ki nga xamante ni mooy kilifa kër gi ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey RTS rek muy góor ak jigéen di nuyu it képp koo xam ne yaa ngi safoo émission bii nga xam ne mooy wareefu jullit ak foo mën a nekk moo xam biir Sénégal wala bitim Sénégal tey nuyu it képp koo xam ne diine ji ñor na la ak képp koo xam ne kat nga ak képp koo xamante ni it jàngkat la di amaat mbégte dajewaat ak yéen ci beneen tomb woo xamante ni tomb wu am solo la comme ni nga ko jiitalee imaam mooy ni tomb bii ñu tànn tey. dafa am ak relation bu dëgër ak tomb bi nga xam ne moom moo weesu woon ci jotaay bi weesu ndax jotaay bi weesu ñu ngi doon waxtaanee ban rôle la école am pour tabax société pour tabax société rôle boobu nag ñu jotoon koo wax te école dafa am ñoo xam ne ñoo fay nekk di fa liggéey léegi nag ñu ne comme noonu la demee woon kon foog ñu indi émission boo xam ne day tax la weesu woon gën a mat loolu moo tax tey ñu tànn benn thème woo xam ne mi ngi war a waxtaan ci lan mooy jàngale kat ci tabax ki nga xam ne mooy jàng ndax waxoon nañ école li ko tax a jóg mooy tabax nit kon ni tey loolu la ñu war a waxtaane ñu tànn ci nag docteur al mufattish Sayid Xuma mi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko am yaakaar gu wér ni daanaka dinañ jëriñoo ci moom lool sax moo tax ñu tànn ko ngeen ni tey expérience am ak xam gi nga xamante ni moom la xam li ñu war a waxtaane kon duñ def lu dul ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ko tawfiix mm-hmm. yaatal dënnam te it euh, fecc lamiñam ba nga xamante ni mu mun a jàllale li mu bëgg a jàllale di ko dalal nag di ko wax ahlan wa sahlan macha allah ñaan yàlla defal ko tawfiq amin jërëjëf euh, docteur Mouhamed ñaa ñoo ngi nuyu waa cité enseignant bi nga xam ne fala suñu invité bi dëkk fala la sa di nuyu waa FASTEF di nuyu waa université Cheikh Anta Diop di nuyu ay collègue am di nuyu waa ministère bi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu njàng mi ak njàngale mi ndax kii kenn la si ñoom di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def si réew mi rawatina si njàng mi ak njàngale mi jàmm ak tawfiq cheikhana docteur inspecteur Seydou Xumma asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum asalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullah di sof suñu kàddu cant ci kàddu yi Cheikh Moustapha rotal léegi ak docteur Mouhamad ñang di ko àggale ci kilifa yëpp ñi yor diine ji ak ñi nga xam ne ñoom la yànk yàlla dénk ay masuliyaat ci société bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu kazalika kër gi nga xam ne moo nu dalal muy suñu kër ñun ñëpp ndax RTS lañu wax ci ñun ñëpp ñu ñoo ko bokk di ko nuyu dina nuyu kon tàmbalee ca di directeur général ba jaar ci directeur yi ci des yëpp ba agsi ci agent yi nga xam ne tax tey ñun ak ñoom ñoo nekk ñuy enregistré émission bi di leen sant bu baax nag Cheikh Moustapha ah xanaa di yëgle ne responsabilité bu rëy ngeen teg ci suma kaw bu ngeen amee yaakaar ne mën naa waxtaan ak yéen ci loo xam ne réew mi yëpp la bokk ñor ndax xam naa ne fekk wu ma jataay bi passé waaye ku wax ci rolu so école ci société da ngay gis ne kon njàng ak école ñëpp la yitteel néew na euh, dama koy faral di wax ñi may former ne jàngalekat li tax mu am solo mooy ñëpp ko wóolu lu may dañoo gis ci moom ab safaan waaye ñëpp ko wóolu maanaam a priori musbaqan jàngalekat dañuy jàpp ne aji defar rek lay doon ba kere ñuy gis ab safaan kon loolu doyoon na sigéré wala doyoon na mbégte wala doyoon na makaana ñu ne kon euh, kii jàngalekat la muy féete société bi fi nga xam ne kenn ku ci ne yaa fa waroon taxaw moom ñu tànn ko mu féete leen fa xam naa bu ñu duggee ci kan mooy jàngalekat dinañ gën a waxtaan ci loolu waaye daal maa ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñu taw tawfiq defal ñu taysiir fecc ni suñu làmmiñ ba li nga xam ne bëgg nañ ko wax te yaakaar na ne dinañ ko mën a wax mu nekk luy jariñ te bañ a nekk luy yàq loolu daal bëggoon naa ko jiital ba dañoo dugg si biir bi rek ma laaj la bi ñu tànnee tomb tomb bi mhm. woo la téléphone jox la ko mhm. ban yëg-yëg nga am waa yëg-yëg bi ñaar la wala ñett la bi ci njëkk mooy yëg-yëgu jullit mhm. boo xam ne dafa am masuliya di defar ndax alxuraan daf ñoo xam ne bu leen yàq ci kaw suuf ginnaaw buñ ko defaree wala tufsitu fil ardi baada islaahiha mu bokk ci samay principe que ne saa soo xëy rek dangaa ngaa war defar te ca kanam xat ne mën nañ koo gën a yaatal gis nga tey bu ñuy wax ci rolu éducation éducation ak xale ni ñu koy tabaxe ku ci génne média yi rek naroo lu baax ku ci génne média yi fa nga jëm doo fa àgg ndax doole ji ñu am li ñuy jeexintal ci réew mi ak ci gune yi ku leen xejj ci programme bi nga nar ci gune yi amuloo xamuloo fi nga jëm tanaqud mooy am bu boobaa maanaam contradiction diggante société bi ak école bi ak média yi mhm. kon yëg-yëg bi mu njëkk a am mooy yëg-yëgu jullit boo xam ne jox nañ ko occasion mu mën a wax ci kemtalaay kàttanam ci diggante gune yi ak ñi leen di jàngal mhm. beneen bi liggéey bi may liggéey daal mhm. daf ma nattu lu jiitu may nekk fonctionnaire sax dama doon jàngale ñu daan ma yebal ci ay dëkki kaw li ñu daan wax madarisul baadiya ci ay fuuta ak fu mel noonu ma daan fa jàngale te booba lu tuuti la day dellu si li may sànq ci yaakaar gi ñu am ci jàngalekat kon bu ma yàlla nattoo ma nekk ci may daanu jàngale depuis lu mat lu romb fanweeri at ci jàngalekat kër kër yu tuuti yi maanaam élémentaire di ñëw tey ba université loolu ab yëg-yëg la ci man koo xam ne bu doy waar la beneen yëg-yëg bi mooy ñu tànn ma ndax xaj na man dañu may tudde inspecteur général koo xam ne njàngalem Sénégal dañ dañu bokk ñi koy saytu ci anam ba gën a kawe am dañu naan li assemblée nationale voté muy loi d'orientation mhm. ne njàngale mi fii la war a jëm mhm. ak ku ko mën di doxal ca ministre waag ba ca suuf ñun bokk nañ ci ñi koy dimbali pour loolu mu dëppoo système éducatif dëppoo ak li nga xam ne loolu moo nekk ci loi ji beneen bi mooy ñi may formé mhm. yàlla daf maa nattu may former ay inspecteur ñoo xam ne dañuy ñoom ñooy dem ci biir tere bi di xoolati loolu ak seeni gët di ko xool ak moyens yi ñoom. maanaam ñiy former jàngalekat yi. ñiy former jàngalekat yi yàlla nattul la nga leen di former ma leen di former. Mhm. waaw loolu yëpp boo ko boolee. Mhm. ak gëstukat bi ma doon. Mhm. nga xam ne bind naa ci lu baree bari ci wàllu éducation. loolu li muy tekki mooy responsabilité bu rëy laa am waaw di ñaan yàlla nag ah li ma fiy wax yàlla na lu jariñ la kulli xaal mooy suñu yéene incha allah waaw buñ ci juumee ñu jéggal ñu ko rek macha allah te xam ne jotaay bu mel nii njuumte mën na cee am mhm. mën na ci am waaye bu boobaay ñu jéggal ma ko macha allah waaw jërëjëf euh, inspecteur xam naa directement rek ba ñu bàyyi xel temps bi euh, su ma doon laaj sama première laaj mhm. damay tëb liñ tuddee rôle mooy lan si biir xam naa dana feeñ ci say waxtaan mhm. jàngalekat mooy kan waaw jàngale kat junj naa ko sànq boo jëlee baatu arab bi ndax moom laa gën a miin nga jël muallimu ismu fail la kuy métier woo di jàngale nga jël ki muy jàngal loolu xaj na di ci ñëw muy mutaallimu boo ci àggee dinaa ko leeral waaye muallimu mooy kam mooy mooy ki nga xam ne dañu wax ne dafay jàngale mu am baat buñ ko mën a dendaleel mooy murabbi kiy yar ñaar yooyu jege lool te léeg ñu tàqali ko. diggante jàng muallim ak murabbi waaw ndax nit dina yar nit te jàngalu ko mm-hmm. waaw moo tax murabbi moo gën a yaatu. Mm-hmm. waaw léeg-léeg nga yar nit te du da koo jàngal lii ñu miin ci njàng teg alluwa ci penkoom di ko binduloo ndeejoor ak càmmoñ. wala nga yore cré wala nga yore cré tiim tableau mm-hmm. kon muallim ci gàttal daal léeg-léeg mu tolloog murabbi waaye murabbi lañ gën a soxla parce que dafay ëmb mu muallim éducateur moom moo gën a fort enseignant kon kullu murabbin muallim waaw kay wa laysa kullu muallim murabbi murabbiyan waaw loolu leer la waaye nag bi ngay muallim bi ngay taalim yaa ngi jeexintal ci tarbiyatu nit ki yëg nga ko wala yëguloo ko te foofu la jàngalekat amee problème dañoo fan lu leen neex sañ nañ ko lu leen neex mën nañ koo def te loo def lu mu tuuti tuuti dana am athar effet ci ki ngay tarbiya yëg nga ko mu baasaratan mu teel a ñëw wala mu guddee ñëw wala mu naaje mais dana ci am donte doo ko yëg. moo xam lu baax lay doon wala lu bon. wala ab safaan kon muallim mooy ko xam ne xeet yi da ko tànn mm-hmm. ndax réew mi moo moom éducation mm-hmm. waaye jur yi ñoo moom éducation muy seen fardu ayna ma mm-hmm. waxaat waxaat ko tarbiyatul warat jàngal ko farata aynu la boo demee ci Abu Hamid al Ghazali far ne la julli ware noonu la lay jàngal sa doom ak yar ko ware société yu njëkk yi nga xam ne lekkool melul woon nii kenn ku ci ne yaa daan taxaw loolu ci sa doom di dem ba yàgg ñu ne comme yi dañuy tasaaroo nit ñi dañuy am ay soxla nañu am ñu ñuy tànn suñu biir tàggat leen ngir ñu yaral ñu xale ñu wuutu ñu ci suñuy doom loolu muy di jàngale mu nekk métier mhm. comme ni ngay wutee ku lay ñawal ndax ñëpp mënuñuy ñaw comme ni ngay wute kuy defari dàll ndax ñëpp mënuñuy defari dàll waaye ci lislaam da ngay jàpp ne yar sa doom safara faratay jëmm la yow ku la ci wut rek yow la koy defal li muy tekki mooy kon jàngale kat dañ ko tànn mu wuutu waay jur yëpp mu wuutu société bi wuutu état bi état bi kuutal ko ci place boo xam ne dañ naan ko yow lañuy ñuy dénk ñun ñëpp li ñu xalaat ci suñuy doom kaay yow nga defal ni ko waaw rôle bu nganda ngand la bu rëyee rëy lool macha allah malheureusement ma al ci ñi ma ko sañ a wax mhm. naa kebe kebe nañ ma baal mhm. wala looyeen yi waaw ñi ma ko sañ wax ñoom métier lañ ko def pour wut lu ñu yóbbu seen kër déet waay waaw loolu nag musiba la allahu akbar waaw musiba la ndax bi ñu nekkee CFPP mhm. mooy centre de formation et de perfectionnement pédagogique man ci laa jaare dugg ci njàngale 1991 dafa am benn ancien ministre bu ñu seet si woon yal na yàlla yërëm ko nekkoon inspecteur ba nekkoon ministre de l'éducation nationale mu ne ñu bu leen nekk ay réfugié bu leen làqatu ci njàngale ndax dangeen a bëgg a dund nekk leen ay missionnaire muy kaadal ras kaadal muallimu an yakuna rasulan moom loolu la ñu dénkoon moo tax ma ne kon ki ñu tànn yàlla leen te kon mu fekk moom mu bëgg ko mu tànn ko te bañ caa làqatu rek ngir lu mu yóbbu këram bu dee bu yemee foofa rek amaana mbir mi du mel fi mu war a dem kon jàngale akum njàng du jaay ak jënd déedéet du njaay jënd njënd lax ñax li ngay jaay kenn mënu koo jënd ba mu nekk njaayum jënd ñun nit ñëpp ñi ñu jàngal man allamaka xarfan yaa ko wax yaa ko wax ki la jàngal benn xaraf yilif na la moom na la sa kilifa la kon du njaay ak jënd du rapport boobu déedéet rapportu client ak euh, kiy jënd mhm. ak kiy jaay mhm. nekkul ci enseignement ndax li nga koy jox buy fulu yow doo ko yëg buy meññ sax yow mën nga koo bañ a yëg te koo jàngal dalaa war a raw. koo jàngal dalaa war a raw. lu tax lu tax mooy boo ko joxee li nga xam yëpp. Hmm. moom mu mujj la ci jamono wala jamonom tolloog xam-xam yu bees yoo xam ne yow tolluwoo ca woon mënatoo koo gës hmm. da ngaa war a ngéej moom mu raw la. Hmm. waaw moo nga jàngal da ngaa war a yàkkamti mu raw la loolu jàngalekat rek mu mën a am yéene boobu. xanaa waajur. mu am yéene boobu dem ba jàngal nit ëllëg mu àgg fenn fi nga cay kontaan kon du mbir mi du jaay ak jënd déedéet mbir du commerce ñi ko jàppi noonu yëpp nag dañoo juum waaw moo tax privatisation beeg ak yi da ci aj yëpp yu jara xolaat la waaw moo tax constitution bi bind ne xale yëpp Sénégal xale yëpp dañoo am droit ci ñu jàngal leen éduquer leen état bi moom la war ku koy def rek état nga dimbali moo tax ñu dajale suñuy impôt di mhm. tabax ay école di fay jàngalekat et cetera loolu yëpp a tax état bi di ko def parce que droit la ci xale yi waaw kon léegi xale bi mi ngi jàng weer dee fayul ñu dàq ko loolu pour yow jaaduwul dañ koo tooñ xale bi lañ tooñ déet waay waaw xale yi dañoo mënta porter plainte rek waaye kon ñoom dañuy dañuy dañuy wuti avocat daan ku leen dàqate ñu dem ci yoon parce que dañu ne war ñoom dañoo war a jàng mais fayuñu waaw mais ki leen war a fayal du ñoom ñoom waruñoo fay jàngaleen leen war bu seen waajur waree fay te war ta fay état bi moo ko ci war a wut parce que dañoo bind suñu constitutionnel droit la bu état gàddu ku ko ciy def moom ngay dimbale kon loolu ñu war a xoolaat la waaw parce que gars yi de cinq dañuy dugg ci classe yi moo du njaay soor Demba Ndiaye soor Fatou Kébé dañ koo commercialisé mooy li ma la wax dañ koo weccee ak xaalis du yoon xale amul devoir ci fayal boppam am njàngam dañoo am droit ci jàng mu jàng dafa am droit ci jàng mhm. waaw constitution bu dafa wax ne droit la ci xale yi ñoo ko am mhm. waaye boo demee ci loi d'orientation dañ caa dugal sax léegi sart bu gën a metti depuis 2004 mhm. ñu ne xale bi fukki ati njàng muy éducation de base da ko war a nekk fu ñu koy jàngale ak di ko yare fépp fi école publique am nañ ko fa yóbbu bu amul état bi war na ko mën a dimbale ba l'essentiel mooy ñu bàyyi ko ci fu muy jànge diggante fi muy amee juróom-benn yaat ba fukkaat ak juróom-benn te loolu boo ko delloo ci société bi li ngeen doon waxtaan ay weer bi passé yoon bee passé diggante école ak société mm-hmm. bu ñëpp jaaroon foofu bari na lu ñuy jàmbat tey amaana duñ ko jàmbat mm-hmm. waaw kon mm-hmm. xale daal pour tontu mu baasarata ci question boobu kenn amul droit dàq ko ndax fayut waaw la ñuy jaar ko dàq nag nañ ko waxtaanee ak état bi na ko parents lay waxtaanee ak école ba mais xale bi moom dañ koo tooñ dañ ko tooñ. ak ku ko mën a dàq. ak ku ko mën a dàq da koo tooñ te bu ma doon porter plainte day porter plainte te day am raison grève yi enseignants yi sax xale yi dañ ci amul pexe rek nekkoon dañuy porter plainte. déet waay. waaw parce que yow da am droit xale bi am droit. mais enseignant bi day demandé ay xawma lan yoo xam ne état mook ko war a jox. waaw bi ñu demee ba relation bi rapport beek métier mi li ci ëpp. intérêt matériel la moo tax ñu mën a yàq intérêt moro yi ndax lool waaw mais mais du warta am wala boog bu dee am état bi moom na continuer na garantie continuité enseignement bi ci mooy bu mu ko mën a def mais est-ce jàpp nga ne li yi di laaj léeg-léeg lu nekk rek man mosuma gis ñu ne dañuy grève parce que classe yi amuñu ay table banc wala dañuy grève parce que classe yi dañoo bëri élèves wala dañuy grève parce que nangam ki nangam waaye dañoo grève ngir suñu ndàmpaay nangam rek lay dégg ndax loolu loolu cosaan bi mën naa sori. waaye cosaanu syndicat moo am problème ci sama xalaatu bopp. Mhm. parce que bu ñu nee syndicat dafay défendre intérêt moraux et matériel. Mhm. ci ñi fa bokk loolu xata la. foot la waaw. parce que nag yi bu fi nekkul doo am soow. nag wi. bu fi nekkul doo am soow. dëgg la kon mu noo jot ci soow mi te nag wi dundut. dëgg la l'école l'école bi. Mhm. maanaam syndicat bi intérêt bi mu waroon njëkk a mooy intérêt école bi mais pas intérêt moom. dëgg la. parce que bu toppee defan intérêt matériel ak moraux yu moom yi mu am mën naa dem ba salfaañe ak àqu xale yi wala àqu école te du ko yëg loolu moo tax ma ne ni ñu définir syndicat intérêt wu ñuy liggéey loolu problème la intérêt entreprise bi ñuy liggéeyee intérêt école bi la waroon a jiital bu ko defee xale bi dinañ ko tudd lu bari ci grève yi dinañ ko tudd lu bari ci négociation yi mais néew na fu ñuy taxawee di wax ci élève bi ndax mu ngi jariñu dëgg dëgg dëgg ci système ah néew na de man mi ci nekkit xam naa ne néew na principe la nag lépp daa war a tourner autour de l'élève mais en réalité lii am demewut noonu parce que élève bi xale la mënta wax waaw loolu mooy li wér ndax yow kilifa nga ci gars yi waaw loolu mooy li am loolu hmm. mooy ma am ko wetti it euh, mën nga koy wetti waaye ala kulli xaal loolu mooy li am hmm. demal nga jël seen li ñuy wax plateforme Revendica TV yëpp hmm. Euh, da nga ci gis ne li ñuy tudd lu jëm ci système bi dëgg-dëgg du mat sax 15 pour cent te ñaare dañ koy wax nii rek mais du mbir mi dëgg-dëgg. waaw man nañoo arrêté yi grève parce que am nañu satisfaction feneen mais lu jëm ci qualité enseignement bi gréval nañ ko euh, bariwut lu muy am bariwut lu muy am. jërëjëf inspecteur ma may la nga tuuti ma ñëw sama consultant consultant dégg nga inspecteur li mu wax. lii moom man ñëwuma ko wax man parce que moom kilifa la te xam na affaire bi li nekk si biir xam na ko li jaadu xam na ko li jaaduwul xam na ko lan ngay dolli. waaw imaam xam naa ni li ma cay dolli de ndax moom la mu wax moom. Mm-hmm. man ne moom du ma am lu ma cay dolli. ndax ni mm-hmm. expérience bi mu ci yor. Mm-hmm. yoruma ko ci. waaye comme tey lañ ko laajoon sànq nga xam ne tey moo yaatu noonu. mën naa taxaw ci ci ñaar yoo xam ne yu am solo la lu mat a bàyyi xel la. ndax bi ñu ko waxee kan mooy jàngalekat. Mhm. ndax ci la développé ba am lu bëree bari yu mu leeral. Mhm. moo wax ni jàngalekat ak yarkat dafa wuute. comme bu ñu delloo ci arab mu rabbi ak mu muallim mhm. kon nga déggee ci ne yarkat bi moom lañ séntu ci moom mooy dafa a jàng. ndax yarkat moo gën a yaatu jàngalekat. mooy moom bu ne mooy ni ki ñuy wax naan yarkat la mooy jàng na ba pare. yor na lu mu joxe ci xam-xam. ba pare lu baax ak lu bon. ba yor jikko yu mu mën a def ci nit ki. moo tax mu ne yarkat moo gën a yaatu. macha allah ndax nit ki mën na jàngale bu génnee fii la doon jàngale ak la muy def mën naa wuute mhm. ndax mën naa jël li nga xam ne moom lañ bindi lii mooy programme bi ma joxe ko mais man sama yoon nekkul ci leen yarkat nag du def loolu mhm. yarkat li muy jàngale di la ko jox mooy li nga xamante ni moom la jikkoo mhm. kon ni tey moo tax ni jàngalekat bu ci nekk rek lam mu war a def ci boppam mooy def war a doon moom yarkat ndax ni wax na ko ngir ni yow booy jàngale sa élève day am ci yow benn confiance ki ngay jàngal lépp loo def mi ngi def effet ci moom te yow yëgoo moo xam yëg nga moo xam yëgoo ndax ni moom lam lay jàppee du la jàppee yàlla waaye mi ngi la koy nurale mooy ni yow loo wax rek lu am la léegi nag yow bu fekkee ni jàngalekat bi bàyyi woo xel loolu tey yaa ngi dugal ci xale bi loo xamante ni mi ngi dugg te ëllëg mën na ko jural musiba kon nii moo tax jàngalekat yi war nañ séparer diggante yar yarkat ak diggante jàngalekat mu wax beneen point bu am solo mooy ni ñu ñun kat yu ci bari jàngale bi dañ koo def ngir métier di seentu la 30 wala la 31 bu ko defee lan lañ may fay te bépp jàngalekat boo xam ne looloo nekk sa bopp mooy ne yow mënoo def ci xale bi dara ndax ni jàngalekat bi mission bi nga xamante ni moom la yor mission wu yenente yi la te boo demee ci alquran da lay wax ni wa yaa qawmi laa asalukum alayhi maala in ajriya illa ala allah li may def nii di ci sonn ngeen may saagaak def nangam la ma leen ci dërëm yàlla laay xar sama pay kon jàngalekat bi li ko war mooy ni message bi mu war a jàllale def ko ci xale bi na ko jàllale fay nañ ko na ko jàllale dëgg la nag loolu moo koy jàppale mu mun a nekk mhm. mais na def ci xelam ni lii farata bu ma war a def dama koy bëgg def ko mhm. ndax ni li nga bëggul di ko jox xale bi xale bi bu màggee moom it du ko bëgg mhm. ndax moom bi nga koy jàngal sentir na ni kii di ma jàngal lim may jox ni bëggu ko dëgg moom ay temps wam rek lay lay lay lay lay réglé kon ni loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la euh, li mu wax lépp daanaka macha allah yàlla na ko yàlla dëgëral jërëjëf consultant docteur Mouhamed euh, Cheikhana docteur Moufattish ginnaaw bi ñu xamee kan mooy jàngalekat ak li ko war kan mooy jàngkat. waaw foofu mooy kan mooy ndongo. waaw foofu dañuy dellu ci baat bi. Mhm. ndax moom it ismu faa'il la ndax da nga ne mutaallimu. Mhm. waaye waznu bi siira bi dafa bukk teg siiratu muallimu. Mhm. mutaallimu mooy ki nga xam ne moom mooy jëf jëf ji di dellu ci ci moom. muallimu nag day jëf jëf ji def ci keneen. boo amoon benn jumla danga nga naan. allamtu zaydan mhm. aljaria mhm. man mhm. maa jàngal zayd mu mën a daw waaye zayd moom bu doon wax danaan taallamtul jaria man jàngal naa sama bopp mën a daw kon mu taallimu li ma bëgg a feeñal foofu rek mooy du nit koo xam ne da koy jàppe ne bant bant loo ci bëgg def mën nga ko cay def moom bant waaw bu la neexee ko waaw bu nga xoos ko bu nga daaj ko bu la neexee ko waaw bu nga jël pont daaj ko waaw waaw mhm. waaye nit du matière boo xam da ngay ñëw rek def ko li ni li nga bëgg mhm. moom day am projet boo dul yëg am lu muy bëgg loo xam ne mën nga ko bañ a yëg mhm. am lu man loo xamut moo tax ñu jox ko siiratu mutaallim kuy jàngal boppam waaye tekkiwu ne nag mooy xamal lépp boppam waaye faaw mu bëgg ñu dénk la ko yow ngay def ci moom nag ànd ak moom hmm. ànd ak moom boo dee def te neexu ko ah donc boo mooy doo am résultat de doo am résultat de moo tax jàngalekat bokk na ci niñ koy tàggate hmm. muy xam xale bi hmm. muy ilmu nafs tarbawi ci bunt bu yaatu boobu ci la dugal nit ki ñu war a tàggat mu nekk jàngalekat ngir mu xam gune mooy kan rawatina ki mu jàkkaar lool ndax gune yëpp yow yemuñu am na yu ñu bokk ci societé bi am yu ñu bokk ci fi ñu bokk quartier ba am yu ñu bokk ci classe bi am yu ñu bokk ci at yi ñu toll am yu ñu bokk ci góor lañu wala jigéen lañu wala ay maas lañu. Mhm. mais ku ci ne am na foofu teg sa morom. jàng waaw kay si bëgg gi waaw si gaaw a comprendre gi si yéex a comprendre gi voilà si dofe ci neex deret ci neex deret ci gaaw a mer. voilà ak jóge ci kër gu dal. Hmm. ak jóge ci kër gu jax dëkk ci karte bu dal. day jeexantal ci xale bi. yëpp day jeexal ci xale bi xale li jeexal ci xale dafa fragile dafa fragile mooy euh, la alayhi salaatu salaam alayhi salaatu wasalaam doon doon wax naa rifqan bil qawaariir hmm. jigéen ñi mu leen di nduróog. nduróole ak bouteille en verre bouteille en verre mhm. wala njaq su ndaw soo xam dafa yomb tëj mu ne mhm. na ngeen xam ni ngeen koy téye mhm. loolu la waxaat ci beneen xadis rek ne laysa min la man lam yarham sagiirana wala mu waqir kabirana rahma jooju nga xam ne moom la yàlla di tàllal ci suuf ba ñun ñëpp ñu man cee dund xale boo ko yërëmut mu yii ma wax yëpp doo ko mën a seetlu ndax li nga bëgg rek ngay def li nga bëgg rek ngay wax sa yoon ci moom ni ko yàlla binde sa yoon ci lim bëgg sa yoon ci lim man danga koy yen lu mu mu fexe ba yenu ko nag nga fa ne da koo man hmm. fekk góorgullu na ba man ko mhm. mais mën na ko yàqal loo yëg moo tax gune inspecteur affaire yombul ak a jafe wallaay foofu rek la mbir mi jafe waaw jàngale moom wax dëgg yàlla mu ngi jafe ci gune yi waaw ku yemale ñëpp rek pour nga jàngale day doy waar moo tax groupe classe bi li muy yaatu yóotu wala li muy tuuti tuuti wala sax sa doom bi bopp yi ci kër gi kenn ku ci ne dana am loo ko man di wax ak loo ko mën di defal ndax moom lu mu mel wala lu mu bëgg wala fu mu jublu te kële jubluwu fa loolu nag aussi système bi am na ci tuuti jafe-jafe mhm. ah ñu baal ma ma wax ko ndax ñuy wax psychologue conseiller mhm. man dañ dañ jàpp damay jàpp ne dañoo war a accompagner tout le tout le système éducatif mais waruñu nekk rek ci ay centre d'orientation bu ñu orienté xale yi jotee ñu wax ci ak wax ci. Mhm. parce que instructeurs yi ñu ngi leen di former. Mhm. dinañ jàng loolu tuuti. Mhm. mais duñ ci spécialisé wu. mais ala kulli xaal jàngkat daal xale. jàppal ne moom mooy jàngal boppam yow da nga koy dimbali. mooy élève mooy élève bi mooy mu taallim. mooy jàngal boppam. waaw mais yow da nga koy dimbali yow da nga koy da nga koy joxañ da ngay ànd ak moom danga nga koy wan léeg jiitu ko léeg-léeg nga tolloog moom léeg-léeg nga ne ci ginnaaw te ko bàyyi muy def lu bari. waaw nga neex deret lool woyof toy ci kanamam. léeg-léeg nga dóor ko. déet dóor moom dañ koy aay déet waay. waaw waaw Sénégal moom dañ fi aaye dóor dóor moom violence physique ak verbal sax. dañ koy aaye boo jàngalee xale bi sëñ bi ay semaine mënut a comprendre dara ko il faut nga dóor xoolaat sa bopp nga xoolaat sa bopp. alayhi salaatu wasalaam ba ñu ko yebalee Taïf. ba mu mm-hmm. demee Taïf di wuti wallu. Mm-hmm. ba gaañ a def ko lañ ko def mooy boole ko xaj yaak jigéen ñi xale ya. Mm. ñu di ko sànni xeer. yonent yàlla euh, subhaanahu wa taala yebal yonent yàlla jibril mhm. na ko demal nga laaj ko bu bëggee rek ñaari montagne yi ma tappale ko ci kaw ñi mu maasari leen lu mu tontu woon ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun jeex na xamuñu ba pare daan na nag yombalal ma mbir mi rek bu yàggee dinañu xam dama koy wax jàngalekat bu amee tuuti échec na ko jiiñ boppam dog ko jiiñ xale bi waaw boo demee ci réew yu yi hmm. am nañu classe yoo xam ne école bu ne dañ fay teg ku bari xam-xam ku mën a diagnostiquer yooyu problème bu nit ki amee difficulté ak élève moom bu ko diagnostiqué mooy jël xale bi fexe ba résoudre problème bi xale bi mën a waat ci classe kon xëcc xale bi yóbbu ko ci directeur ne ko ki mun ma ko jàngal jox ko beneen jàngalekat loolu yoon waaw ki jaaxle man na koo def waaw waaw moo gën muy doore loolu moo tane waaye yàlla na fekk directeur bi am solution ndax directeur yi si daa war a nag sut tuuti ñi ma ñi muy jàngal ci xam-xam ak ci jig ko ak ci woyef ak ci mën a seetlu et cetera da leen war a tane ndax jaaxle goog bu ñëwee ci moom mu mën koo saafara. directeur kon day saaga xale bi de da koy saaga ndey de. ah man day loolu moom jàpp naa ne boobu directeur moom xanaa saaga moom dafa aay dafa aay. warul du du lislaam du jikko daal kenn du ko saaga kenn du ko dóor waaw xanaa dóor bi ñuy wax ci sharia mooy ci julli. te mm-hmm. nañ koy dóore ku ne xam na ko. Mm-hmm. duwul dóoru mbugal. du dóoru naqar mhm. dóoru jubbanti la xeet pono xeet xeet pono lañ koy dóoree waaw kay ah loolu ñu def fii ci classe yi hmm. damay laaj kenn du ko dóor xeet pono maanaam mooy xeet pono mooy lu jógee ci pono waaw eh loolu na waaw ah, yoon da koy tere ci réew mi ba taatan kenn du dóor xale boo demee ba am blocage seetlul ku la ëpp xibra ci mbir mi wax nga ko léegi sa directeur mu ngi fi bulu sa directeur sa moroomu jàngalekat mu saa nag gëdd ko deful li ko war boobaa xale bi nu muy def dax ya lay doon day doon victime rek ñu mel noonu ngay gis ñu geddi école te fekk mënoon nañoo jàng dañ leen a comprendre ci benn jamono dama lay jox benn misaal mhm, bismillah waaw dafa am xale boo xam ne dana raw lu bari mhm. di jël toujours premier collège la li may wax ay 18 lay am ay 17 mhm. ci biir année scolaire bi yaayam génn àdduna loolu traumatisé ko composition ba ca topp mu wàcc ba année bay jeex presque amatul note yu baax conseil de discipline conseil de classe bi bu ñu réunir comme amul not ñu sukkandiku ci note bi rek ne day redoubler wala sax dañ koy dàq loolu bu ñu bàyyi woon décision bi jàdd mhm. jàll mhm. xale bi mën na fa am traumatisme boo xam ne dootu ko dootul deñati léegi nu ngeen defee ah ñu def mooy dajalewaat conseil de discipline mhm. conseil de classe bi ñu xool leen seen décision en fonction de lii ak lii ak lii ak lii ñu dem ca kër ga def enquête yi war a def ba xool ne xale bi bu buñ ko encadré bu moytul sax waxuma la bàyyi jàng mais mën na àgg ci dof ñu jël ko amee teguñu si mu redoublé at ma topp xale bi am BFM ci ak condition yi ko war a amee kooku buñ ko dàqoon année boobu musiba am mhm. bu fekkoon accompagner wuñ ko musiba am donc xale yi ay victime lañu mhm. waaw liy xew ci seen kër bu fekkee ne kër ga dafa jax tuuti bala muy xëy mën na ko yóbbaale école ngay wax ak moom du la dégg fekk ma ngay xalaat la xew si diggante papaam ak yaayam wala la muy xalaat mën na sa romb mbedd mi benn affaire choqué ko xaw koo jaaxal mu ñëw ci classe bi nga commencé wax ak moom muy nekk ca loola balaa muy dellu si nga gëdd ko ñaar yoon ñett yoon ñàkk ko ci bi mu affolé mu affolé mhm. ñàkk a mokkal bind mhm. nga dóor ci xale mhm. léeg-léeg nga di dóor dóor bi jur comme li ngay wax li daan xew ci nañ ma baal ci yenn barab yi mën naa nekk daara mën naa nekk feneen bismillah bismillah bu taree gag nga dóor ko mhm. mu gagaat nga dóor ko bu yàggee dootul mën a dem parce que wax ngelaw li may nooyee ci lay waxe mhm. te bu ma dee jooy damay soxla beneen effort pour jooy yooyu ngelaw loolu da daf ma ciy dimbale ba pare nga bëgg ma waxaat lu baax ba pare sama xel jaxasoo moo tax léeg-léeg dóor yi yàgg ba faatu ñëw waaw nga dóor ko benn ñoo ko waxal nii mu wax ko juumaat nga dóoraat day daal di xëcc dootu ko mën a waxati parce que amul temps wu noppalu ba ngelaw lu ñëw fa war a ñëw mu jël temps pour réfléchir mayuloo ko jooju jamono jooju waxtu nga tegale jóori rek ba xale bi sedd say loxo enseignant boo dégg ñu ne faat na taalibeem sëriñ daara wala jàngalekat condition yi mel noonu kese la wala ba nga ngadd ko benn yoon mu dal foo xam ne waru faa dal mu jaar say loxo ñu ne rey na taalibe bu ah. moo tax dóor moom dañ ko aaye mhm. waaw mhm. ah am na kilifa gu baax sëñ Saliou Mbacke dama mhm. koy tudd radiallahu anhu nañ ma ne nee na daana wax ne ku dóor dese rek yebal naa la génnal daara yebal naa la waa yeewi naa la ndax dane dóor màndarga tële la ci jàngalekat da ngaa yàkkamti te mënoo muñ moo tax ngay dóor kon dóor moom naa jàpp moom du solution déedéet du solution wax dëgg yàlla du solution am na nag ñu naan la am naa résultat ndax dóor naa ko mu mokkal mooy li ma wax rek waaye bàyyi nga résultat boo gisul la daloon sëriñ daara ba ganesee papa yi sëriñ papa yi ndongoli ndongoli doxa ko ginnaaw ngàdd ko ñu ne lan la mu ne daf maa dóoral ba may nekk daara ji kon asar bi sëriñ daara bi bàyyi xam-xam ci la mais bàyyi na lu mu yëgut woon laa ilaha mu gane si ji mu ñëw ngàdd ko ne damay fay mi ngi guuxaloon sëñ daara bi waaw waaw moo tax ak coxor moom yonent yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay wax ne ma kaana rifqu fi cheyin illa zaanahu wa ma nuzia min cheyin illa shaanahu waaw maanaam onf daal ak jafe-jafe ak dóor ak wex lu mu dugg rek da koy yàq waaye rifq nag ak neex deret ak lewet lu mu dugg rek dana ko rafetal kon xale yi nañu rafetal suñu diggante ak ñoom mhm. ay jàngkat lañu ndax ñoom dañoo war a bëgg dañ leen war a jàngal luñ soxla mhm. dañ leen war a jàngal dëppoo ak seen i man-man ak seeni pexe yi ñuy def loolu boo ko defee ñaare mooy ànd ak gune gi di ko gunge résultat ba ngay am mën na ëpp fuuf li résultat keneen di am te bu ëllëgee xale bi dina xam ne yow jàngal dama jàpp ne kon euh, jàngalekat war naa am yërmaande si xale bi comme waajur ni muy amee yërmaande si doom waaw ndax sànq wax naa leen Abu Hamid Ghazali dafa wax ne fardu aynu la mhm. nga ñu teggil la ko nga teg ko keneen mhm. war ko caa dimbale kon mhm. bët bi ngay xoole sa doom ki koy jàngal noonu la ko war a xoole ma al asaf léeg-léeg xale yi dañuy bari ci école bi wala ci classe bi ba jàngalekat bi dootul tal yooyu waaye na delloo si sagoom rek ndax if dafa am beneen avantage gis nga gune yi sëñ Moustapha dañuy dimbalante seen biir loo jàpp na yow boo ko ko waxee moom du ko xam ñaare bu ko ko moroom waxee mu xam ko xale yi dañuy jàngalante dañuy wéttalante dañuy mottalante uhuh. donc lu ñu bari bari bul jaaxle boo leen jiitalee rek mën nga am solution mais bu ne yow nag yaa bëgg a wax juróom fukki nit dinga nga dëgg la ndax juróom fukki ñaar ñoo ci mën a wax ak yow nga dégg leen mooy jàngalekat jàngalekat yooyu di wax naan ndax comprendre ngeen ñu waaw loolu fu mu mën a amee ki naan waaw daa mën a tontul demba ah mën mënta tontul demba wallaay wax nga dëgg donc xale dañoo war di liggéey individuellement ak collectivement ak di def ay groupe di waxtaan ak ñoom bàyyi li ñuy wax naan maanaam enseignement par les pairs ku nekk di dimbale morom ja ko defee yow jafe ji jafe ji nga am mën nga ko bañ a am. ñoom ñoo koy réglé seen biir. ñoom ñoo koy réglé da nga leen di gunge rek. moo tax jàngalekat na muñ na teey bu mu yàkkamti. bu muñul teeyul yàkkamti te yàkkamti nag day dóor rek wala mu teggi ah yow oh tu es un daal di dem ca kàcce des ki mu naan tu es moom bu melee ne man day gis bopp. te pourtant loolu day de. ah li ma lay wax kay dama ko dund ba tey man kay yàgg damaa dem ci classe yi léeg dama daan dem ci classe ay jooy sax laa fay jëlee ah parce que day day def loo xam ne dama ko mën a muñ damay damay yërëm xale yi te xam ne rek ndeysaan amuñu chance amuñu chance ndax waa ji dafa mer wala këram nam fanaane neexu ko mu ñëw yëpp yëpp yebbi ko xale yi te parce que aussi nit bon nit nit la nit loolu nag moo tax sànq bi may wax ci syndicat yi li ñuy défendre ñoom seen i intérêt matériel ak moraux xaj na wet googu lañ koy jëlee. dëgg la mooy jàngalekat waroon na nëbb ay problème am. benn waaye nee na à partir de la vingt jëm fin de mois jàngalekat yi si yi gën a mais weer bi bu deewee ba le cinq le dix dañuy neex deret lewet di maye xaalis di léeba ko lëppoon. waaye la vingt jëm suuf moom. voilà tey xale yi dee loolu moo tax loolu xaj na mooy tax euh, sànq li ma doon wax ci syndicat yi. Mhm. ñuy défendre seen i intérêt matériel yi ndax li ñu leen teg dafa diis. Mhm. ki nga xam ne këram lay waaje mhm. yow boo amee congé moom amu ko jàngalekat amul congé. amu ko. xale yee koy am moom amu ko non xale yi am congé. waaye moom congé boobu mu 3 mois wala 2 mois yooyu. Hmm. muy xalaat déjà ci li muy liggéey. jàngalekat nga wax. waaw jàngalekat waaw. bu nit ki wàccee dem këram di nekk ci balaxal madame def lu ko soob mhm. moom sañut loolu gars yi dañuy xarmatu de si trois mois yooyu waaw xarmat day dellu ci li ñu doon wax léegi fekkee ne le vin da am problème boo mhm. xarul mat kër gi xarkee nga dem xarmat <laughs> waaw te it société bi ñoo ko soxla loolu day tekki ne aussi njàngale mi matut ok bu matoon dëgg fu ñuy xar te dañ ko am waaye ah. comme day manqué fu ne waaw mais inspecteur jàngalekat yi leen fay dafa bëri ah rawatina si si si état wu Macky ah, Sall dafa du seen poste moom jàngalekat lu bari lu doy donte nag état bi def nay effort yu extraordinaire yoo xam ne ay salaire u cinq cent mille six cent mille lay dégg waaw boo ko comparé ay boo ko comparé li fi amoon da nga naan def nañ effort naam dëgg la mhm. mais feek jàngalekat bi yeewul ci kër gu mu moom te loolu UNESCO ñoo ko saxal mhm. jàngalekat daa war kër gu muy dëkk mhm. moo ko moom man waxuma bu ñuy luyee de ndax bu ñuy luyee moom tabarkal la koy loué ñu taxaw la weer wu dee kooku mënoo day na waar daal du ma ci mm-hmm. dugg mm-hmm. waaye gënut mm-hmm. kër goo moom problème santé boo ko amee ñu réglé ko sa waa kër noonu sa loolu bu ñu ko bëggee bu ñu ko defan yenn problème yu bari ci classe yi dana dana dana lañ waaw bi indaal lu muy jaay ci école bi du génn di xarimat ba tax dootul tal xale yi waaw waaye nag bu réew mi demee noo xam ne kenn mënta matal lépp ku ci nekk da ngay xam ne état bi mënta matal lépp nga nga nga jaayante def ko risaala muy sacerdoce métier mi parce que à l'époque déggoon yu fay ko cent mille francs waaw mooy li ma rek xew xew na de waaw waaye xewul waaye pouvoir d'achat bi mooy problème bi saa à dire nit ki boo ko doon fay un million yit te un million yi bala weer a dee mu le quinze le vingt mu jaay ko ci ay farata ba dootul amulum dese mhm. euh, donc xaalis amul solo li muy faj moo am solo muy pouvoir d'achat. ok ñu ngi ma signalé ne dix moo des. xam naa sama consultant ma jox ko benn baat bu gàtt parce que dafa am benn tomb bu am solo boo xam ne moom laa bëgg a mujjee mooy jàngale kat naka la ñu war a mën a def ba mu tabaxa tabaxal ñu ab jàngkat boo am ah. njariñ ci société bi. docteur bismillah waaw imaam xam naa ni du ma wax euh, lu bari bismillah comme mii di jeex na mhm. mais sànq bi muy wax ni ci jàngkat mhm. mooy koo xam ne mooy defal boppam mhm. moo tax même boo xoolee arab sax mutaallim ndax dañuy wax ni taallama moom fu mu ñëwee rek mhm. coono foog mu am léegi nag ñun jàngalekat yi ñu war a bàyyi xel ni du xale bi rek moom mooy mutaallim mhm. mag bi nga xam ne mësta jàng même bu saxee sikkim bu ñëwee na ko jàppee xale ndax métier bi mu dugg la ah. loolu loolu ñun foog ñu bàyyi ko xel day jàng mhm. lépp looy jàng yaa ngi koy doog a tàmbalee xale nga ci hmm. même boo saxee sikkim bu dee góor nga kon loolu jàngalekat bi war na ko bàyyi xel ndax bu fekkee magum jëm mu ñëw na am kattanam yow it nga bëgg a problème day am dëgg la mooy li jàngalekat ba defoon jàngal ki muy jàngal jàngal ko faa'il ma maf'ul sujet ak complément xamu ko ay fan mhm. dafa bàyyi ba mu xëy rek taxaw ci buntu classe bi mu ñëw mu dóor ko dóor ko ne kan mooy faa bi mu ne ko yow mhm. kan mooy maf'ul bi mu ne ko man fa lay xale bi jaar dégg ko Mm-hmm. mais loolu moom mënoon na jaar beneen côté comme ni ko inspecteur waxee mm-hmm. kon lu ci bëri loo xam ne mm-hmm. jàngalekat yi war nañ ko bàyyi xel moo tax jotaay bi jotaay la woo xam ne dafa war a moo tax bëgguma guddal xam naa ne naa ko bàyyi kàddu gi rek mu continuer di des bu ko defee ñu nit ñu jëriñu jërëjëf consultant waaw euh, suñu xam na am na sax ay tomb yoo xam ne ni dama koo tëb mais bii moom a gën a yitteel ab jàngkat wala ab jàngale kat naka la ñuy tabaxale ay jàngkat yu am njariñ pour réew mi seen bopp ak seen suuf. waaw loolu aussi daanaka ni euh, mooy émission bi yëpp. Mhm. ndax jàngalekat d'abord dañ ko war a tànn. jàngalekat waaw dañ koy tànn. dañ koy tànn. dañ koy tànn tànn bu wér sax tànn bu baax a baax a baax foofu it ay soox-soox am na fi ay cooxe euh, waaye comme li ma wax rek am réew moom day am fam bu fa tolloo. Mhm. ah yaa fi sës mooy tax a falu. Mhm. waaye l'idéal la gënan mooy jàngalekat yi dañ leen tànn ci ñi dàq jàng ci ñi mën a gën a rafet ci ñi mën a jàng te gën a rafet ko mais léegi loolu bareetut ñi dàq jàng feneen la ñuy jublu ndax foofa ëpp lii bari na fi xeetu jàngalekat yu manqué lu mel ne mathématiciens yi ndax ñi leen soxla dañoo bari te liñ leen di fay fii dafa xaw a néew kon ci gàttal daal ca jamono yi tubaab yi moom euh, ñi daan jàngale mooy ñi rawan kon dañ ko war a tànn soxna ko sànq ci xam-xamam ak ci jikkoom moo tax dañ leen daan demandé bon vie et mœurs pour xool quartier ba nga dëkk ak gox ba nga dëkk noo fa nekkee kon nañ tànn jàngalekat bu baax pour ëllëg mu mën a tabax moom tabax nañ ko moom jàngalekat bi waaye loolu doyul maanaam maanaam jaar na ci nekk ndong moom ba ñu tabax ko ca nañ ko tabaxe léegi nag moom bu ñu ko tànnee ba noppi société bi da koy dénk dafa am lu ñuy wax transition te naqul mooy jóge ci xaalatu nit ku am xam-xam di war a dund àgg ci nit ku am xam-xam nekk jàngalekat bu professionnel loolu ak togg la waaw transition boobu mooy indi formation mooy indi ay renforcement de capacité mooy indi yëpp ba kere muy mel ni mu war a mel foofu nag léeg-léeg fi la coow liy nekk fii ma nekk rek laa lay jëlee exemple FASTEF faculté la mm-hmm. Mm-hmm. bu njëkk école normale la woon léegi nekkatu ko faculté la wuute na wuute na mm-hmm. bu njëkk bu daan forme jàngalkat fii ci Sénégal bu dee ci ñi di jàng ci école tubaab yi dañ daan formé ñeenti at diggante fi nga am brevet ak fi nga amee bac yooyu yëpp am mënatu la nekk tey ndax fi jamono toll jarul ñuy dugg ci li ko indi waaye nattal rek kiñ daan wax ne ko dañ lay waajal ñeenti at tey ñu ne ko dañ lay waajal ci juróom-ñaari weer ndax diggante bi mën naa yem. te tey la soxlay gën a bari. Mhm. tey la école gën a complexe tey la société bi gën a complexe te jëflanteeg nit mooy jëflanteeg société bi maanaam xale yi école bi société bi lay représenté ci bu ndaw hmm. kon jëflanteeg ñooñu dafa laaj formation. Mhm. kon ni muy tabaxee. ak fan lay intervenir mooy ci école bi ci cadre sociale bi muy nekk société bi muy dund loolu ci lañ war a jàngale jàngalekat ak matière ya jàngale ñu former ko ci ci nan lañ koy jàngalee lan mooy xam-xam bi d'abord xam-xam bi mu yorti ko jàngale lu mu doon lu mu doon nan la ko xale bi di jànge man fu may jaar ba jàngal ko ko bu ko jàngee lu mu koy jariñ yan jumtuwaay donc laay jëfandikoo ba xale bi mën a ànd ak man Mm-hmm. loolu mooy indi programme donc maître dañ koy tegal programme wala dañ koy jox ab curriculum formé ko ca ba mu mën a jàngale. Mm-hmm. donc tabax école bi curriculum bi moo koy gàddu mooy wax ne fii lañ jëm ak gune gi ginnaaw bu ñu xoolee loi d'orientation li wax ci njàngale. Mm-hmm. fii lañ jëm ak gune gi ci at yii nii lañ koy defee ci barab yii nii lañ koy natte ki koy jàngal lii la soxla moom xale bi lii la soxla nii lañ leen di toppee nii lañ di ànd ak ñoom nii lañ di natte et cetera et loolu. foofu noonu la ñuy tabaxee euh, ab euh, gune mhm. mais du ñu bàyyi rek kenn ku ne ngay def lu la neex mhm. mënta nekk donc xam-xam day fekke tabax bi mhm. xam-xam bi nga am yow sa jikko waaw sa jikko da koy fekke cadre bi ngay jàngale da koy fekke programme bi ngay jàngale ak nañ ko tëggee ak nañ koy natteeg niñ koy doxale da koy fekke am na ku lay dimbali si da koy fekke ak ku lay xool si société bi la gën a jege muy parents yi communauté yi dañ ko war a fekke mais inspecteur loolu nag Cheikh Moustapha affaire yi waa mais bari na ci nag loo xam ne mhm. nit ñi yebal seeni doom ci école yi xamuñu ko mooy parents yi waaw wallaay xamuñu école bi rëccukaay la pour ñoom xale bi na dem ba fii ak dix heures dix heures moo ko gis wallaay ndeysaan mais loolu yëpp da nga koy delluwaat ci école bi ndénkaan lañ koy def rek voilà jeex na ndénkaan loo xam ne nii bu ruuree sa yoon nekku ci bu yàq yi fi jàmbur sa yoon nekku ci maanaam xale boo ko gisul rek yow am nga jàmm mais loolu la wax ne ci bi la dellu bu ma doon dama la wax ne mhm. école bi am na problème. Mhm. parce que jubbantiwul société bi. Mhm. société bi am na problème parce que école bi jubbantiwu ko. la ilaha illallah. ndax école bi société bi la jóge mhm. société bi day reflété wu ci école bi. école bi moom it daa war di def luy dellu ci société bi rapport dialectique boobu nag. fi la yëf yi ne. dinaa ci teg nag ne. ñiy yar te xamuñu ko. ñooñi ñu ngi yàq lu bari. ñiy yar. te xamuñu ko mooy ñan parent yi wala jàngalekat yi. naa tudd média yi. média waaw télévision yii li ñuy def ci gune yi. te dëppoowul ak li nga xam ne moo war a am ngeen baal ma nag. Mhm. waxuma ñëpp. Mhm. non ñun RTS bokkuñu si ñun. waaw waaw <laughs> bu la neexee bismillah waaw yéen RTS li ma bëgg a wax mooy. RTS du du rajo ak télévision kese. waaw ñëpp ñuy wax ci public. Mhm. ñëpp ñi parce que xam nga dañu naan. éducation dafa permanente. fu nekk lañ koy fekk. te ñiy acteurs yi leeral du ñu yëg ne ñoom ay acteurs éducation lañ. dëgg la loolu rek laa bëgg a wax. Mhm. léeg-léeg sa doom toog ba yàgg muy seetaan télé wala mu déglu rajo wala mu gis dara mu laaj la loo xam ne nii da koy perturber moom. Mhm. léeg sa doom ne la waa papa lii nit dina ko wax. Mhm. te fekk ki koy wax ci bi mu koy wax ay millions ngi nit ñu ngi koy dégg. léeg-léeg sa doom laaj la loolu waa kii lu tax muy wax lii lii nit dina ko wax. donc bu ñii di tabax ñii di wéq muy daanu. miir du taxaw. dëgg la donc l' éducation dafa permanente. dafa multi acteur ñi ciy bokk dañoo bari te yëguñu ko te am na ci ñoo xam ne ñoo ëpp doole école. Mhm. waaw loolu problème mu kat yi la dañu am problème boobu dañ koy dund ci classe yi dañ koy dund ci école li ñuy tabax am na ñu koy màbb te ñooñu mu ñoom contrôlé wu ñu leen. la ilaha yi jàpp ñu si ni war a jàpp ñenn ñi. Mhm. et cetera bu dee privé yi ci ñi ma ko sañ a wax. Mhm. dañuy tabax xaalis ngir balaa ëllëg ñu tabax geneen kër. dëgg la balaa at ñu jënd beneen oto bu bees. sañ nañ ko. Mhm. parce que kuy kuy liggéey war nga am teraanga. Mhm. mais boo jiitelee loolu. Mhm. dàq bu bari bii amaana loolu dina am te gis naa fi école yoo xam ne dañuy maye. maye lan. ah maanaam li xale di fay. Hmm. bariwut. ku ne mën na koo fay. loolu laa bëgg a wax dëgg la. waaw ay fondation mu ngi fi. mais nag am na ñu yéegal seen. non ah jamono yi benn ministre kay damay bañ a tudd turam demoon nañ fi bañu ne inscription yi nañ ko yemaleen ci nangam. la ko waral leen ku ne fàttaliku na ko. dëgg la. ah fekkee ne balaa ngay dugal sa doom wallaay ndeysaan weer woowu boo ci amee ñaari gone ba ñett sa salaire ngay génne wallaay ndeysaan loolu metti na metti na trop nga leb ko mu topp la wallaay ndeysaan waaw donc day day indi yi ñuy wax allahu donc il faut li sama benn xaritu directeur di wax mhm. école sasu ñëpp la mhm. bu ñu la ko dénkee dañ lay jàppale mhm. maanaam ñi ñu ko dénk ñun ñoo leen ko dénk parce que suñu alal la kon ñun ñëpp ñoo war a dugal suñu loxo ci école inspecteur ñu ngi may signalé ne benn minute moo des. voilà dama bëggoon nga joxe sa ndénkaan ak sa tàggatoo. waaw ndénkaane bi mooy képp kuy nekk ci éducation daal na nga ko jàpp risaala. mooy message. waaw mhm. maanaam yow borom sacerdoce nga borom risaala nga. Mhm. kaadal muallim an yakun rasulan waxoon naa ko léegi. Mhm. te may fàttali. ne gëstu yi wane na ñi gën a yittewoo jàngale balaa adduna bi di bees. comme nii mu beesee. diine yi la woon dëgg la. ndax diine ñoo jàpp ne jàngale faratale ci ñoom ñi di ko def majjaanan gratuitement ngir yàlla moo xam diine catholique la diine l'islam ak diine bu mën a doon mhm. la ñu njëkkoon a moomal seen bopp mooy jàngale dëgg la même école bii ñu tuddee école française ci mhm. Sénégal ñi ko fi njëkk samp duñu ay colonisateur ay ay missionnaire la ñu woon daara fii ci Sénégal ñi ko fi njëkk samp dañoo laxasu woon ngir def ko jaamu yàlla léegi la moderne xew mhm. ñuy fay ay quarante mille ak cent mille waaye ñëpp ñu daan jàngal alxuraan sacerdoce lañ ko jàppe risaala bu ñuy ada jàpp nag ñoom ñooy ndono yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lay dénkaane ab yonent nag liñ séq ak moom mhm. kon loolu la ñu war a séq ak jàngalekat yi wormaal leen mhm. waaw di leen respecté di leen nemmeeku fonk leen mhm. waaye léegi kuy wax lu misaal bu bon sax da ngay tudd enseignant loolu vraiment lu doy waar te ministère bi war na cee jóg waaw fu ñu attaqué te enseignant ci ci moral wala ci jëmmam mu taxaw ca lañ ca war a def mhm. boobaa syndicat yi buñ ci taxawee abukaay taxaw ci ñu jàppale leen parce que ab jàngalekat kenn waru koo tooñ ñun ñoo ko yen lu diis mhm. nañ ko jàppale looy tàggatoo waaw nag li may tàggatoo mooy ñaan yàlla mhm. yàlla defal ñu jàmm amiin yaa rab ah, dama ko doon bëgg a wax léegi xaj na mu ma fàtte ko am na sama benn mbokk journal dama koy dégg mu di ko wax nag muy lu ma neex PSE xam nga moom ñu koy firee plan Sénégal émergent mu ne ëbbi mm. e nañ ko def éducation mm-hmm. plan Sénégal éducation nee na nañ yaraat nit ñi waaw xam naa nag autorité yi bàyyi nañ ci xel mm-hmm. ñu ngi def lu ñu man mm-hmm. mais ku ci ne la na yaraat boppam seetluwaat ak taxawaayam directeur école yi nañu xam ne ay kilifa lañu jàngalekat nañu xam ne ñu yaakaaru lañu képp ku ñu denk école gën jaa néew juróom benn téem ñett téeméeri xale di fa yeewoo war ngaa yëg na yow liñ lay jox lu rëy rëy rëy nañ leen valoriser. Mhm. nañ leen valoriser. Mhm. du ma leen waxal ay droit nag. dëgg la waaye daal nañu gën a valoriser jàngale yi ak directeurs yi. te gën a toppatoo ndongo yi tamit ñoom bu boobaa ñoom dañuy toppatoo ndongo yi. ala kulli xaal loolu daal mën naa koo dénkaane di ko dénk sa bopp di ko dénk nag mbooleem jërëjëf euh, euh, consultant lan ngay tàggatoo waaw imam xam naa ne di ko sant uh-huh. ci kaddu yi mu fi yëkkati it ak ci uh-huh. li mu fi joxe lu muy lu am solo macha allah dinaan yàlla subhanahu wa taala mu leeral te yokk xam-xam bi yàlla bàyyi ko fi mu dund lu yàgg-yàgg di ñaan it ñii seetaan liñ dégg ñu mun cee jëriñu kon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf euh, docteur Mouhamed Niang consultant jërëjëf Cheikhana Mufattish almuwajjih almurabbi Seydou Xumma wax dëgg yàlla tey moom yaakaar naa ne ñi topp émission bi yëpp tey nañ am kontante goo xam ne ni gëj nañ ko am maa ngi sant sama caméraman yeeg ñi nga xam ne ni ñoom ñu jàpp si émission bi ba ni mu leeree ak ni mu yànjee macha allahu taala ngeen am ko di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko kon waree fu jullit fii lay teg baaraamam incha allahu taala ba beneen plateau si beneen numéro ak invité wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.